Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm yëglekaay yi dañu koy door rek réew mi quotidien lu jëm ci wàllu emploi des jeunes jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la këru liggéeykaay di jànkonteel taxaw gi ñu war a taxaw lii di secteur privé bi président bu MEDES nag ma nga cay joxe xalaatam ak gis-gis bi nga xam ne rek am na ko ci bu ñu sukkandikoo ci Mbagnick Diome nag faaw rek ñu daal di soppi politique bi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëmale ko ci wàllu xëyum ndaw ñi moo doonoon ganuk seen émission grand oral amale ci réew mi TV moom président du mouvement des entreprises du Sénégal nekk itam jiital promo consulting nag di vice président bu patronat francophone nag ma ngay becc li nga xam ne rek mooy xalaatam ak gis-gisam ci politique bi nga xam ne rek war nañ koo amal jëmale ko ci wàllu xëyum ndaw ñi moom Mbagnick Diop mi nga xam ne rek ma ngay amal ay jéego yu am solo ci wàllu secteur privé bu Sénégal dalal nañ ko ci seen émission Grand Oral ma ngay àddu jëmale nag ci solidarité bi nga xam ne rek war nañ koo amal ci presse bi ñàkkum xëy mi nga xam ne rek moom la ndaw yi nekkee jafe-jafe yi nga xam ne moom la entreprise entreprise yi di dundee saay su nekk rawatina lu jëm ci dimbali gi nga xam ne rek war nañ koo amal jëmale ko ci secteur privé bi loolee di ab ñamali rek jëm ci thème yi nga xam ne rek war nañ caa àddu jëmale nag juróom benn fan ci weeru juin atum 2024 ci jamono ji ñuy waajal assise économique yi nga xam ne rek MEDES war na koo amal moom Mbagnick Diop nag ci émission Grand Oral ma ngay àddu jëmale nag ci li nga xam ne rek mooy inspiration bi mu am ba taxawal forum bu premier emploi ma ngay xam ne ni nag bi mu ubbee ab entreprise da doon jot ay CV yoo ne rek ay bac plus yoo xam ne lekk seeni borom amuñum xëy loolee nag moo ko poussé mu dem seeti ay chef d'entreprise nag waxtaan ak ñoom ba taxawal forum du premier emploi nag ci atum 2001 ci jamono joojee nag bi na ba ca 300 millions des ba tey ci yëglekaay bi di réew mi quotidien ak lu jëm nag ci bëccëg bi nga xam ne rek kilifa yu réew Sénégal doon nañ ko amal jëmale ko ci wàllum set ak setal suñum réew yéenekaay bi ne jomaay réussir na testam bu njëkk Le Soleil yëglekaay feelu ko ne lancement bi nga suñum réew président Bassirou jomaay Faye kay jamono ji nag bëgg nañu daal di koy wéyal yéenekaay bi ne Sénégal gépp nag ñoo daal di génn wuy si woote boobee nga xam ne rek moo tukkee woon ci njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye élimaanu jëwriñ bu Sénégal Ousmane Sonko ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne lu jëm ci wàllu set ak setal suñu réew nag ñun ñii ñoo ca war a njëkk kenn du jugee fële di ñëw di ñu defaral suñum réew ñun ñii ñoo ca war a jiitu Sud Quotidien daal di xam ne ne ci bëccëg boobee ñu tànnoon nag ngir setal réewum Sénégal nag doon loo xamante ne nii njiitu réew mi bëgg na ko boole ci nekk askan wi le quotidien yëglekaay na bésub set setal bi nga xam ne rek ci la kilifa yu Sénégal xëye woon yem benn fan ci weeru juin def nañ ca prox ndollu ñoom kilifa yi nag di àddu jëmale ci changement yi nga xam ne rek bëgg nañu koo indi ci institution yi moom Ousmane Sonko ma ngay xam ne ni nag daanu yaatal mbale mi te loolee daañu ko dooree ci wàllu justice bi bu ko defee nag bu ñu noppee ci mbale moomee nag kenn ku ca nekk moom da ngeen xam la mu def laas yëglekaay daal di des ba tey ci succès bi nga xam ne rek moom la journée nationale de set setal boobee daal di am yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ne daañu nettoyer état bi les éco yëgle kaay faylu ko ne Sonko kay ma ngay soldé te ay comptam moom Elimaanu jëwriñ ji nag ma ngay xam ne ni daal ni ñu assainir lu jëm ci wàllu environnement bi nag noonee lañ ko fas yéene doxalee ci wàllu gouvernance bi responsabilité yëpp nag daañu ko situer bu ko defee coupable yi nag daañu fay lépp luy bor bi nga xam ne rek lebal nañ ko askanu Sénégal source a la ñuy àddu jëmale tey ji nag moom mi xëyee ci mbuxum yi nga xam ne rek moom la ñu nemmeeku ci AIBD yéeni kaay bi ne lu ci fanweer ci ay directeur exécutif ak lu toll fukk fukki chef de département yéeni kaay bi ne ay salaire yoo xam ne rek kenn xamul fu ñu koy dugal ak ay litre de carburant yoo xam ne rek dañu bi ne président Diomaye Faye ko doon jébbale ay directeur ci jamono ji nag aéroport Blaise Diagne am na lu toll ci junni ak juróom fukki ci ay liggéey kat ci jamono ji ñu koy ubbi nag lu toll ci juróom-ñett fukki agent ak juróom benn rek ñoo fa daan liggéeyee les éco yëglekaay des ba tey ci aéroport Blaise Diagne ak lu jëm ci wàllu ajig màkka gi retard yi nga xam ne rek moo am ci Air Sénégal yéenekaay bi ne ujaaj ci jamono ji nag mer bay futtu la ñu def ànd akum njàqare ñoom ujaaj yooyee nag ci aéroport Blaise Diagne foofee la leen Air Sénégal bàyyi voyagiste privé yi nag ña ngay fësal seenuk mer jëmale ko ci compagnie boobee nag di sàkku ci état bu Sénégal mu def ci ak taxaw seetlu Walf Quotidien dañ leen a ci aéroport Blaise Diagne ñoom ujaa ci fi mu toll nii nag ña ngay dal ca kaw Air Sénégal El Malick mi nga xam ne rek mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllum transport dem beeg dikk bi ma ngay xam ne nag ne kenn bu mu daw ay responsabilité am l'observateur na aji màkkaatum 2024 bii kay ujaa ci jamono ji nag ci galère dëggantaan la ñu nekk te loolee dafa war a dakk voyagiste privé yi nag génn ci patt pataaral gi ñu nekkoon di sàkku ci élimaani jëwriñ jéeg njiitu réew mi nag ñu daal di wut ay saafara ci la jafe-jafe laa séglekaay ne ci enfer dëggantaan ci la ujaaju woon nag boobaak léegi Houraye Thiam di ab voyagiste privé ne ñu ngi woo daal kilifay Sénégal ngir ñu daal def taxaw seetlu ci situation bii nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku faaw ñu daal di amal ay appel d'offre international ngir lu jëm ci tukki bi nga xam ne rek moom la war a amal ñeel ujaaj yi l'observateur xëyee tey jii ci leneen mu soxol liste rouge bi nga xam ne rek moo ñeel passeport diplomatique yi yéene kaay bi ne ñu ngi jëm ci suspendre nag lu étrangère yéenekaay bi ne jot nañu ay instruction yoo xam ne rek bàyyeekoo na ci élimaanu jëriñ bu Sénégal ci mission boobee nag ñeent ñoo xam ne rek dañoo jege woon Macky Sall sible nañu leen ci jamono ji nag Vox Populi nag xëy tey jii daal di àddu jëmale nag ci loolee ñu dippee république des juges yéenekaay bi séq waxtaan wu yaatu ak kii di Alioune moom ma ngay sàkku ci njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay mu daal di dakkal nag pression bi nga xam ne rek moom lay amal ci jamono ji nag moom ma ngay xam ne ne nag lu jëm ci wàllu république des juges amul ci benn dëkk bu ñu koy toll nii nag moom président Diomaye Faye ci li ñu koy xaar rek mooy mu daal di jublu ci projet yi nga xam ne rek moo gën a nekk priorité jamono ji addu jëmale ci leneen ak solo yëglekaay mi xëyee tey ji nag lu toll ci fanweeri kilogramme cocaïne bi nga xam ne rek teg nañ ko loxo ca kër ayib yéene kaay bi ne waa douane bu Sénégal nag cocaïne boobee ñu teg loxo bu ñu ko xaymaa ci suñu xaalis toll na ci 2,4 milliards jeexalee ak wàllu tàggat yaram 15e sacré européenne pour Real Madrid réew mi quotidien xam le ni lu jëm ci wàllum Ligue des champions nag Real Madrid ji nag am nañu ndam lu rëy ci week-end bi sunu lamb daal di xëyee tey ji nag ci jongante bi nga xam ne rek amoon na ci diggante Jackson Junior ak kii di Lac Rose yéenekaay bi ne ginnaaw fukki at ak benn yoo xam ne rek toog na te amul ndam moom Lac Rose nag wane na boppam démb ca arène nationale daan jëlu bu set wecc kii di Jackson Junior mbokk yi li ci gënoon a fës yéenekaay jàmm ak jàmm. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may